Sene Info International. Sene Info International Sene Info point net euh, bonjour euh, dalee nag jàmm si li gën a fës si xibaar yi mardi 28 novembre 2023. dañ koy dooree rek ak Vox Populi Vox Populi ñëw na si face à face bi nga xamante ne ministre de l' intérieur ki nga xamante ne moom mooy Sidiki Kaba euh, def na ko jàkkaarloo na ko ak député yi nee na show face à face député Yewwi ministre de l' intérieur. donc euh, si journal bi su sukkandikoo nee na les députés de l' opposition lui jettent des pierres le ministre de l' intérieur les gaz donc euh, démb face à face boobu journal bi euh, moo ñëw fasal ko si ëttam bu njëkk nee naa réplique de Sidiki Kaba les élections qui seront organisées seront transparentes et le verdict des urnes sera respecté donc ki nga xamante ne mooy Sidiki Kaba doon jàkkaarloo démb ak député yi moom il tient à nee na élection yi dina jaar si yoon te yëpp dina transparent loolu la journal Vox Populi xëy euh, xamal ñu saa une ñu ñëw rek si journal bi ba tey euh, mu ne 27 associations dénoncent les pratiques de certaines ambassades donc euh, pour euh, des visas donc elle cible les ambassades de France Belgique Espagne Afrique du Sud États-Unis Canada entre autres donc euh, association yooyu doon dañuy dénoncer li nga xamante ne moom mooy xew ci ambassade yi donc journal bi ñëw euh, fësal ñu ko euh, ñu ñëw rek euh, si Walf Quotidien Walf Quotidien nee na organisation de la président présidentielle Sidiki Kaba indésirable donc ki nga xamante ni mooy Sidiki Kaba comme nañ leen ko waxee sànq rek moom député yi ñoom dañoo posé wu ay question bu bëree bëri par rapport ak transparence élection yi donc loolu moo waral démb bu muy jàkkaarloo ak ñoom ñoom xamal nañ ko de vraiment dañoo bëgg ay élection transparente ki nga xamante ne aussi mooy ministre de l'intérieur Sidiki Kaba aussi moom rassuré na leen ñu des rek ci journal bi nee na apocalypse salvatrice Sidi Sidi Lamine Niass ressuscité dans un livre ki nga xam moo ne Sidi Lamine euh, na benn livre boo xamante ne dañ ko ko jagleel mu nekk genre dundalaat ko voilà par rapport ak euh, euh, son vécu donc loolu la journal bi xëy fësal dans sa libération moom dafa ñëw ci code des marché publics nee na le code des marchés massacrés donc loolu la journal bi xëy euh, fësal nee na audit des contrats de délégation de services publics dans les secteurs de télécommunication donc journal bi dafa def gëstu bu yaatu yaatu euh, sur le code de marchés donc loolu le code des marchés euh, massacré mu ngi ci journal Libération. Le Soleil moom dafa ñëw ci inauguration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine donc moom. dinañ ko amal donc ki nga xam ne mooy premier ministre Pape bi moo ko war a inauguré fi Sénégal donc nee na il effectuera une visite de travail et de métier et présidera la cérémonie du nouveau sanctuaire national marial de Popenguine le 9 décembre donc le 9 décembre ki nga xamante ne moom mooy premier ministre Pape bi dina ñëw Sénégal pour inaugurer li nga xamante ne moom mooy nouveau sanctuaire marial euh, de Popenguine donc renforcement aussi du dialogue interreligieux euh, donc loolu aussi bokk na si ponk yi nga xamante ne visite boobu nga xamante ne premier ministre Pape bi dana de effectuer Sénégal dina ci bokk les échos les moom mu ngi ñëw ci transplantation bi nga xamante ne def nañ ko comme ni ñu ko waxee démb transplantation rénale bi nga xamante ne def nañ ko si ay trois patients yoo xamante ne ça a été réussite ndax bu leen sukkandikoo si yenn cas yi trans euh, transplantation yi ñu doon def yëpp c'était à l'étranger démb ñu def essai au niveau de l'hôpital euh, def des essais au niveau de l'hôpital militaire de Ouakam mu nekk une réussite ñu ñëw si euh, euh, l'observateur moom l'observateur moom mu ngi fësal à sa une ki nga xamante ne moom mooy transplantation bi nee na nous avons sélectionné quinze pour en attente en attente d'une transplantation de rein donc transplantation boobu aussi nekk na loo xam ne dafa cher buñ ko xaymaayee si njëg nekk na dix millions de francs CFA la ñu defee transplantation. donc loolu la journal bi xëy fësal ñu des rek ci journal bi mu def enquête sur l'étrange destin de oustaz Oumar Sall ki nga xamante moom mooy oustaz Oumar Sall l'observateur dans sa rubrique tranche de vie ñëwaat na ci moom nee na moom euh, oustaz bi ancien joueur de l'équipe nationale la woon de foot donc nee na il claque la porte en plein regroupement donc Ousmane Sy bu mu nekkee si équipe bi en plein regroupement dafa euh, claquer la porte dem yoonam euh, loolu la ñu xam ne journal bi xamal nee na la remarque de son maître coranique qui a changé le cours de sa vie son voyage en Afrique entre autres donc moom journal bi dafa def gëstu bu yaatu si livre bu ñu woowee tranche de vie si nga xamante ne moom mooy oustaz euh, Omar Sall mu defal ko vraiment gëstu bu yaatu si parcours am fu mu jot a ak lu moom la nekkoon. donc euh, loolu lañ leen indiloon ah Sene Info International Sene Info point net lii lañ leen indiloon si euh, euh, lu gën a fes si xibaar yi mardi 28 novembre 2023. Sene Info International.